yàgg nañ jàppale ASC fi ci dëkk bi mais dañu gis tay commune sangal nekk na commune bo xamante cette nouvelle commune tay aussi ñu sommes candidats euh, aux élections c'est bu ne ci gox bi ñu and ñu ànd ak ñoom leen pour que vraiment nawetaan ñu mëna jaar ci yoon aussi occasion woon aussi vraiment nous sensibiliser leen pour que nawetaan ni

à la commune de Sangalkam dès le début Nous avons une élection importante. pendant un mois je suis responsable avec les jeunes de créer des commissions pour ces quartiers parce que ndaw ñu puissent la différence c'est le moment créer rupture au niveau des communes mais vraiment nous commune Nous ñu pour askan mais nous pour yow wala ñu est waaw est quartier son nom